len di nuyu di len sant di len gërem ci sen taxaway gis na ne bi may commencé liggéey ah famir yi ñoo àndoon ak man di ma jàppale bu baax mais gis na ne bi lamb yi tàkk tali yi commencé tali jeunesse bi ñoo nañ jappalé ma parce que ñoom won nañ ma ne kuy défar lu wa rek mo leen ñor te comme ñu ngi ci yoon dañ ko fassiyé yéene continuer mbir mi nak coow li coow li borom bis di Ibrahima njay njay di xalé bu engagé wu ci suma côté trichewul goudi ak bëcëk foko fek mi ngi ci réseaux sociaux di xool nan lay def ba yëkkati magam leaderam Moustapha Diop ba mën a fësal liggéey bu rafet bi nga xam ne maa ngi koy def ci Louga ak ci lépp ma koy defal le président Macky ndax man lenn ñoruma lu dul président Macky Sall kon Ibrahima ngàcce ngalama may remercier bu baax a baax nag vraiment waa Algérie ci euh, ni ngeen accueillir Ibrahima yi ànd ak moom di liggéey ak moom lépp ngir ma am ndam noonu laa bëgg nit ñi bu ngeen di liggéey bokk foo xam ne yéenay ndoo ci meen ndab da ngeen war a bokk ndey bokk baay di ndoo di dóorandoo loolu mooy may doole seen leader. kon may lancé un appel di ko lancé 23 comités yi nekk ci Louga yëpp den wax nañu ñu joxante loxo bokk ndey bokk baay. xàccandoo doorandoo may ma ndam lii nag Ibrahima def dama jàpp ne commencé na damay doog di door man sama campagne électorale tijji naa ko bis naka tey fii ci Algérie dinaa dinaa commencé recevoir les vingt trois comités de Louga comité bu nekk dinaa leen recevoir recevoir seni groupement de femmes actuellement lax bu jaxate mi ngi and ak ñom Mariam Yas di wër groupement yi di évaluer groupement yi di xol ñan ñu jot basang fan lañu tollu ak ñi nga xam ne bu leen basang bu ko defee ñu man leen lalal ñeneen ñi laloon paré ñu xol ñi ci gëna jambaré ñu renforcer leen accompagner leen ba taxna ci lolu le Mor Syll ñëw ci man. ne ma dafa bëgg kër Serigne Louga ñoom tamit ñu jàpp meeting bu rëy le 12 mars incha allahu rabbi ma bëgg également comité yëpp suñu paree ñu war ci comité yëpp def ay meeting bu ñu paree nag talal rouleau compresseur bi talal suñu yoon xam ngeen fa nu jëm ñu continuer incha allahu rabbi yàlla suñu borom yàlla may ñu dam di wax nag waa Louga laay waxal tuuti. ndax man lan dama ñorul lu dul développement de Louga wax naa ko waxati wa ko nee leen ba tàyyi ki nga xam ne jëlul salaire ca mairie ba jëlul carburant jëlul dara ca mairie ba kooku yaakaar naa ne xam ngeen ne li ko ñor mooy defar Louga te bi ma ñëwee ba léegi gis ngeen projet yi nga xam ne maa ngi koy teg ci dëkk bi lamp yi leer na quartier périphérique nga xamoon ne dafa enclavé woon désenclavé nañ ko ñi ngi jëm si nii ci centre ville bi defar tali mu leer li ci des am nan un programme boo xam ne programme mu deux mille lampadaires solaires la buñ ko jëlee altier dinañ ci am seen wàll ñaan am seen wàll ñu defar ko man yaakaar naa ne sama programme yi may def yëpp wax naa ko bu yàgg tey boo xoolee boulevard Abdou Diouf di nga xam ne vraiment <coughs> gis naa ne boulevard Abdou Diouf bi nga xam ne ba ma ko waxee yàgg na man maa xool boulevard bi mu nekk boulevard bi gën dàq ci senegal comme dama demoon nekk réew taax nekk Paris gis boulevardu Champs-Élysées man am ma lu luwe yaakaar naa lu rafet rek lu ko lañ ko ma yaakaar ne boulevard boobu dañ koo war a defal ba mel ne boulevard boobu waxuma la waa Louga di fa doxantu si mais waa Sénégal ñëw di fa doxantu si ma xalaat ma xalaat may gis maam ab projet ay programme yoo xam ne dafa faa war a def war koo commencé war a aménager boulevard boobu ba mu rafet ñu am benn projet boo xam ne projet bu ndaw la rek ci projet yi war a nekk foofu muy projet bu doo buy door muy ay manège yoo xam ne suñu doom yi suñu xale yi ñoom ñoo ciy dem di fo comme ni gars yi demee fële ca Ndakaaru di ba fooyee ma bëgg waa Louga am loolu loolu ma jël ko andi ko ma jël ko andi ko Louga ma ko ma jël ko andi ma ko ñëwee ma andi ko dama koy jaarale dama koo jaarale ci yoon dama ko yóbbu ci conseil municipal bi ma waxtaan ak ñëpp conseil yëpp daje fa ñu ñu ñëpp ñu d'accord ci ñu voté ko ñu yóbbu ko ci préfet bi préfet bi approuvé ko avant ñuy dagg garab gi également comme xam na ne garab kenn du ko dagge noonu ñu dem gis waa eaux et forêt ñu autorisation ñu autorisé ñu ñu dagg garab yooyu léegi nag am ñetti conseillers yoo xam ne vraiment c'est mes frères samay xarit lan mais dama bëgg bu ñuy politique vraiment ñu politique quoi amul solo mais loo xam ne pour développement Louga la vraiment ñu bañ cee fooyee quoi ay politique développement ñëpp ci war a jàpp déjà man du ma leen sànni xeer parce que ñoom déjà bu ñëwee ci conseil municipal bi bu ñuy dugg si bu ñuy voté budget bi li ñuy njëkk a def ñoom ñett bu ñuy dugg si mooy nan lañuy def ba conseil municipal bi tas ñett lan yàlla dogal mësuñu koo mën a tas boobu ba léegi donc il faut que ñuy xool njariñu Louga di jiital njariñu Louga bu ñuy xool suñu intérêt personnel bu ñuy xool nan lay def ba ba am buzz wala lay def ba yàq deru nit gi loolu amul solo li am solo mooy ñun ñëpp nañu bokk ndey bokk baay liggéeyal Louga may woo Birahim Tall di woo Ibrahima Diop di woo euh, Amar Thiam ñoom ñett doomu penn naar yi ma leen di woo vraiment ñu ñëw ànd ak man parce que luga ñu ñor la leen ñor ñu bu luga luga kenn mënatu la leen naxati wa luga wessu nan étape bu leen di naxé luga lim bëgg moy nit kuy défar dëkk bi tak dëkk bi ci yoon ta ñun ci loolu lañu ñu nekk te ci loolu lañuy continuer inshallah rabbi